asalaamaaleykum mbokku Thiès gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi maa ngi bëral ngërëm ak sant bu amul ab suma xarit suma doomu ndey muy le président Ababacar Diop cette forte mobilisation symbolise son engagement sa fidélité et l'amour qu'il a pour un Sénégal uni et prospère Babacar ñàkk du réer borom trois heures ba léegi suñu yaay yu baax yi toog suñu papa ak ñi nga xamante ne génération toog boobu ba sa pas-pas sa gëm-gëm sa taxawaay pour la libération du peuple moo ko waral kon jàpp est à lutter pour la consolidation de toutes les forces vives de l'opposition lu koy may mooy booloo mooy doole alternance générationnelle doit être traduite à travers des actes mais pas dans l'hypocrisie Babacar fi nga jàpp foofu la fii mooy ndëgërlaay bi mention spéciale fédération départementale bu FDS Guelwaar dama ne ku sampul Thiès Babacar war naa mun a samp parce que nitu Thiès si dëkk lañ ko war a xamee nitu Thiès si jub lañ ko war a xamee nitu Thiès si engagement lañ ko war a xamee nitu Thiès si patriotique lañ ko war a xamee te loolu yëpp mu ngi si Babacar kon nag Ababacar yàlla na yàlla taxaw yàlla sàmm la sàmm say frère ak say camarade ñi nga xamante ne ñoom nga àndal sa parti bi yàlla na leen yàlla gërëm wasalaam. Malick dafa wax ni ñu jox kàddu gi Ousmane Diagne mu nekk grand frère ci docteur Babacar Diop je suis pas le moom dañoo defandoo suñu cycle. nekkandoo lycée Malick Sy mu nekk fa président foyer ma nekk fa président foyer ñu dem université bu Dakar nekkandoo fa mu nekk président de la coordination des étudiants thiessois ma nekk coordination de président de la coordination des étudiants thiessois mu nekk président amical de la faculté des lettres ma nekk président de l'amical de la faculté de droit donc suñu cycle yi dañu ànd te ba ma xamee Babacar ba léegi ci xeex rek pour que askan wi mën a am li mu yeyoo ci la nekk donc Babacar ma mën ko seede mu nekk nit ku jub nit ku am ay valeur nit ku am ngëm-ngëm donc au nom de tous les partis politiques de l'opposition à Thiès et les du ñu def lu dul ñaanal docteur Babacar Diop yàlla sàmm ko parce que ni ko docteur Dieye waxee léegi Babacar lépp lu leader di am am na ko fépp fu leader war a jaar jaar na fa donc su ko waa Thiès gëmee dooleel seen ay doom je crois bien que Babacar Diop mën na leen valoir ay satisfaction may profiter rek di lancer un appel parce que dañu gis ni Thiès dafa nekk ci situation boo xamante ni situation bu difficile nit yu bëri commencé di abandonner di croiser les bras ñu mel ni docteur Babacar Diop ak ñeneen ak ñeneen nag jug taxaw bëgg nag Thiès yi yeewu ñu xam ni Thiès kenn moomu ko kenn moomu ko te Ceesuwaay yi dootuñu nangu ay nit toog Dakar di teg ay schéma di leen choisiral ay maire bu neexee yàlla incha allahu rabi waa Cees maire bi di jiite Cees incha waa Cees ñoo koy choisiral seen bopp mais pour ce faire pour ce faire je crois que il faudra nécessairement que tous les partis de l'opposition tous les de soutien ñëpp àndandoo nekk benn bloc ñu xeex pour que au soir du 22 janvier maire yi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci commune Thiès yi mu nekk maire yoo xamante ni ñun waa Thiès ñoo leen di choisiral suñu bopp mais du nekk ay nit ñooy toog à Dakar di ñu choisiral suñu maire yooyu ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. fekk si fi Babacar war nañ leen sargal war nañ leen dalal parce que Babacar ñun ñoo bokk Thiès. olof njaay nee na bu ñu nee nit baax na ndax mbokk yaa ko wax kon bu ngeen jógee ci seeni gox ñëw teew ci Thiès di seedeel baabakar ñun ñoo ci war a jiitu ñun ñu dëkk ak moom Thiès te xamal ko lépp li ngeen wax ci moom ci lu baax kon Babacar maa ngi jël nuyoo bi di ko jaarale ci sa loxo yaay Ramatulaay Ba maire Lamatoulaye dase dase naag moom il y moi quelques mois dans mon village à Pognène mu ñëw fa di fi seet si ndey dikkeem lu mu njëkk a wax mooy wax Babacar fi nga toll ci moom kon bi ma ko gisee fii tey ci tribune bi wane na seede yooyu mu defoon te fekk sax lii waajaguñu ko kon bu ñu waxee loolu ñuy wax jigéenu Cees si fi teew di wax ndawu Cees si fi teew di wax kilifa Cees si fi teew yépp te ñu leen di nuyu ne leen Cees à rendez-vous avec l'histoire ndax Cees dëkku bañ la te xam ngeen ne nag toog nañu ba ñu naan senegaal dafa am ay nitu Cees muy stigmatisation boo xam ne dafa diis ci Cees bu ñu toogee ba ñu ñuy duul baaraam naan ñu nitu Thiès Thiès dafa war a wone boppam Thiès dafa war a wone ne bañ ga ñu doon bañ démboog barki démbu fa lañuy teg tànk Babacar ci loolu la ñuy woo kon Babacar boo ñu woowee ci loolu te nga dëkk ci sax ci ñu nit ñu gëm loolu dinañ la ci wuyu si dinañ la ci wuy si dinañ si si ànd ak yow te li fi daje tey ak ñi toog Cees di ñu dégg xam nañ ne dafa jot li ñu wax ne Cees dafa jëlaat war a jëlaat moomeelam dafa jot maa ngi vraiment nuyu kilifa yi yëpp ma limee dina metti mais am na lu am solo li fi président Ousmane Sonko wax sànq mooy xam ngeen ne réew mi metti na xam ngeen ne coono yi bëri nañu bu ñu toogee nag ba ki ngeen jël réew mi dénk ko ko muy tambaambaalu biir Sénégal jël ay milliards yu dul jeex ne dafay wëndeelu tournéwul sax day wëndeelu bu toogee ba xalaatul coono yooyu ñaata milliards la def ci tournée bi kan ngeen gis ministre mu toog ci biroom fi mu toll nii di lijjanti problème mu jeunesse su Sénégal wala problème mu jigéenu senegal ñoom ñëpp ñu ngi ko topp di wëndeeloog moom ci biir àddina bi ni ay bopp yu dagg kon tey dafa jot Sénégal ñu jëlaat suñu moomeel te loolu aussi ci la ñuy woo pour rendez-vous yi ñëw maa ngi yem foofu di leen sargal di ñaan yàlla xeex bi ñuy xeex yàlla defal ñu ci ndam lu rëy a maa ngi leen di gërëm di leen sant